nee nañu li ne am na lu ma wax de ndax yéen koy dégg bu baax nee nañu wax bu mat dof moom bàyyi leen sànni ay xeer commencé leen defar seeni ay cocktail xam ngeen li may wax butéel ñuy jël di ci nas wëñ di dugal am luñ koy jaxasee ak suuf commencé leen defar seeni ay cocktail des millions de cocktails partout dans le Sénégal na commencé Vélingara Tambacounda Fatick na jaar ci yoon bi yëpp dem Kolda Ziguinchor bu benn doomu aadama dellu ginnaaw je vais vous dire une chose je parle à la jeunesse sénégalaise si Macky Sall liquide Ousmane Sonko suñu réew dina delluwaat ginnaaw benn téeméeri at te xam ngeen li may wax moo li xam ngeen li may wax yéen ñëpp xam ngeen li may wax te xam ngeen exactement ni ko Macky Sall yi ni ñuy doxee ñun nañu jóg pour révolutionnaire nañu jóg pour xeex nañu jóg pour déloger Macky Sall du palais il faut que sénégalais yi ngeen déglu voiture armée yi mu jënd nii yëpp pour loolu la li ngeen gis Macky di woote couvre-feu yëpp pour loolu la li ngeen di gis di woote état d'urgence mooy mu jàpp Ousmane Sonko dugal ko ci biir kaso bi toog ci nguuru Sénégal gi ba saa yu ko neexee Sénégal dégg ngeen ko plan wu Macky Sall 2037 dégluwaat leen ma de dem leen ngeen dégluwaat Amadou Ba bi mu toogee TFM te ñu laaj ko benn kaddu la wax dafa ne Macky Sall ñu koy laaj troisième mandat bu ne projet Macky Sall c'est jusqu'en 2035 Sénégalais yi nag laay woo Macky Sall moomul Sénégal il faut sénégalais yi si ñu tànku tubéy ñu jóg defe naa boo ma déggee may wax xam ngeen ne caaxaan jeex ay nelaw jeex na ay foo jeex na baara nañu kër Ousmane kan ci yéen moo ko mën kenn mënu lenn rek la kañ lañ jël ak kañ lañ koy yóbbu naa nekk tey ci guddi naa nekk suba si suba mën naa nekk suba ci guddi ñoom la def fi mu toll nii ils ont préparé faire l'arrestation immédiate de Ousmane Sonko et le livrer à leur justice corrompue ñu YAK addunaam YAK cachet judiciaire YAK dossier mu jeex du Khalifa Sall du Ousmane Sonko du Karim Wade xaru une Seck boobu mu mu jox c'est pas pour mu jox Sénégal c'est pour mu continuer nekk euh, l'escu bi mu doon ànd ak moom pour yàq Sénégal maintenant la génération qui vit

Je suis bien informé et je pèse bien mes mots. Le dossier Ousmane Sonko a été déjà préparé. Ça fait six mois de cela. Ousmane Sonko ils sont prêts à tout arrêter Ousmane Sonko. Sénégalais Sénégalais il y Sénégalais yéen laay waxal photo yooyu ngeen di gis ñuy monté di wane kooru xale bu jigéen bi kooku du xale bu jigéen yaram boobu ñu leen di wan di ko di defaraat loolu yëpp ay photoshop la pour dugg ci seen biir xale bu jigéen boobu sama mbaam sax du ko tëddee wax ko sama doomu aadama mbaam bu ma xam sax du tëddee xale bu jigéen boobu Ousmane Sonko du nit boobu je def daf leen metti ci seen biir xol ils sont en train de se venger de lui parce que dafa feeñal seen i ay deal bu dul woon Ousmane Sonko ñun duñu xam ne pétrole ñu ngi koy exploité Sénégal ñu ngi exploité gaz comprendre leen loolu Clédor Sène Ousmane Sonko nit ñi ay patrimoine lañu xam nañu leen ils les savent xam nañu bu baax secret yooyu ñuy génnee moo leen déranger ils se disent que bu ñu arrêté woon Ousmane Sonko nii cere maanaam ñun dootuñu cere eh, suñu rongoñ ca rongoñu baadoo la dootul siibati cere boobu moo tax Macky Sall a rendu ses amis riches Sénégalais Sénégalais levons-nous et allons nous battre pour ma waxtu dee bu jotee jaam rek mooy dund déglu leen li may wax waxtu dee bu jotee jaam rek mooy dund waxtu dee bu jotee jaam rek mooy dund waxtu dee bu jotee jaam rek mooy dund français li ma leen wax xam ngeen ko nañu jóg ñu xar suñu tànku tubéy xam nañu a laal muy métti foofu la laal mu métti nañu laal a laal mu métti xale yi

C'est une question de vie ou mort. Voilà, c'est une pandémie. N'attendons pas Macky Sall venir détruire nos vies. Partagez cette vidéo. Nous devons fouler ci àdduna. waa Bignona waa Fuladu waa Matam waa Podor Casamance ngeen xam ne aussi Thiès ñu ngi waaj a laal seen doom Macky Sall bi ngi waaj a Sonko. loolu laa leen wax jóg leen ñu xar suñu tànk tubéy Macky mi ngi waaj a yàq addinay Ousmane Sonko Macky Sall mi ngi waaj a yàq Sénégal levons-nous allons nous battre bu waxtu dee jotee jaam rek mooy dund jóg ngeen préparé wu nañu gànnaay yu ñu dem xare nañu xeex nañu xeex ba geer gi ba géej gi

jóg leen guddi di couvre feu pas couvre feu violer tout jóg leen doomu aadama yi ñu génn na ñu génn na ñëpp génn ñu dem xeex na ñëpp génn ñu dem xeex na ñëpp génn ñu dem xeex na ñu dem xeex am na ñu dem libérer suñu dëkk lu leer naa wax seule la lutte libère seule la nag li may wax nii peut-être du ma ko a wax suba mais dinaa ko wax tey ngeen dégg man naa koo bañ a mën a wax suba maa ngi lay dégg. jërëjëf jërëjëf merci voilà gars yi woote leen te boo leen wootee direct au ngeen nekk cinquante cinq mille groupes yu différents soyez cinq mille groupes citoyens cinq mille Sénégal xam ngeen ñaata alkaate fa 4 000 soyez 5 000 groupes différents boo leen taalee bu ñu yëngatoo ngeen taal fële Macky Sall balaa di jot ñu yegg boo leen taalee ñoom ci taal bi la taalee rek jóge fa fu yëngatu rek jóge fa foo leen jaxase rek bu leen tardé xale yi da ngeen di xool day am ñoo xam ne dañuy xool di travailler bu leen woote woon sa na leen leer na tàkk fii bu booyee ngeen jóge foofu yëpp dem feneen bu leen taxaw di leen xaar di leen fay fekk bu fii booyee ngeen dem feneen ay xale ngeen gaaw ngeen on maa ngi lay déglu maa ngi déglu gars yi maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay <clears throat> je pense que ce message yéen ñëpp déggoon ngeen ko message bi am na ñaari at dama bëgg ngeen delluwaat euh, tuuti rek ci message bi parce que ginnaaw message boobu am na mbir yu bari yoo xam ne tey yàlla jox nañu ko ci xarale boo demee par exemple fu mel ni Telegram Telegram am na message yoo xam ne boo ko yónnee day dissoudre boppam après cinq minutes maanaam boo demee Telegram Telegram dalay jox option option ci yéen ñi xam boo demee ci Telegram bi Amn'a option yo xamné bo fa démé man nga éditer mu jox la nga say message bo xassé ba yónnee message dans cinq minutes message bi day détruire bopam day effacé wu génn sa téléphone génn ci téléphone kenen ki nga ko yónnee aussi tey nag dama ñëw waxtaan ak sénégalais waxtaanaat ak sénégalais ndax yag nañu waxtaan ak euh du jour négociation du jour waxtaan bu neex mais jour réalité la ndax àdduna day tollu fo xamné dañuy waxanté dëgg te nit boo ko waxul dëgg wax ko fen buñ fi toogee di layam-layame yaakaar ne waaw makki sàll ak justice am bi waaw dañuy yóbbu Ousmane Sonko procès waaw buñ ko yóbboo rek ndeysaan justice bi day daal di setal Ousmane Sonko mu dem mu nekk candidat présidentiel mu jonganteeg Macky Sall 2024 incha allahu rabbi mu daal di gañe Macky Sall yaa ngi ci ay gént yu xóot te gént yooyu man bàyyi naa ko man léegi bàyyi naa ay gént yu xóot gént yu laayt laay gént xam nga l'heure asone sonné dem jàkkaarloo ak Macky Sall génne ko Sénégal dafa jot yàgg naa jot nag dafa passé sax nag wax dëgg yàlla waaye buñ fi toogee di déglu ay kilifa diine ay kilifa aada ñu naan ñi waaw toog leen rek lépp ci loxo yàlla la ne Amérique bii ma ne yàlla ñëwul tabaxal leen ko dañoo xeex ay doomu aadama ñàkk ci seen bakkan ay doomu aadama dund ci waaye seen sët sëtaat yi ñu ngi ciy bénéficié wu tey te réew mu nekk ci àdduna bi noonu la demee donc buñu togué toogee né ne Sénégal moom daanaka dafa ak yenen réew yi ñun Sénégal ñoo gëna a muus ñëpp Sénégal yalla day ñëw rek dal diñu ko défaral indil ñu fa ay étage indil ñu fa ay tali yu baax indil ñu fa ay ndox yu neex indil ñu fa courant dañuy nax suñu bop xam nga bo jëlé exemple tay ci ñi nga xam ne ñoom ñooy transporteurs yi won nañ ñu yoon Macky Sall ba mu tejé transporteur yi 24 heures ba ñu ne dañuy changer ay loi transporteurs yi bi ñu jàmmarloo ak ñoom yoon yi yëpp ubbiwaat nañ leen ko bàyyi leen ñu daw seen daw normal parce que ful la mooy jaay daqaar kiñ ko sekkal dafa nekkul sax genn wàllu góor bay doon góor xam nga pour nga mën a nekk góor da yàlla dalay sàkk sax nga doon genn wàllu góor góor góor looy tax a doon góor waaye moom dafa amul sax loo xam ne dañuy laaj ci góor ba muy doon góor mbir mi du ay mbiru yuuxu du ay mbiru saaga ndey du ay mbiru menace man mii tey comme ni ma leen koy waxee amaana message bii bu ma leen ko jottalee ba pare man naa accidenté dee wala nit mën na maa dóor bal ma faatu loolu yëpp xëj na ci waaye message bi moom yàlla dana def mu jàll te message bi bu jàllee dañu bëgg a doomu sénégalais yi ñu bàyyi nax suñu bopp ñu xam ne ñañ ko séqal du ay nit yuñ ko war a séqal nañu mesurer seeni ay bien maanaam les intérêts de Macky Sall c'est les intérêts des Français et des Américains et toute autre buñu jamarlo ak intérêt Macky Sall rek ña nga xam ne ñoom ñooy jëflanteeg Macky Sall dañ koy ne delul ginnaw ndax bo delluwul ginnaw suñu intérêt dina jex tak nañu bàyyi ay dajalo nañu bàyyi ay wax téléphone nañu bàyyi puukare nañu bàyyi mer nañu préparer il faut savoir que y a pas de procès il y a pas de procès buy setal Ousmane Sonko Il y a seulement un procès c'est le procès de liquidation de Ousmane Sonko comme ils l'ont essayé de faire avec Papa Lenya et tous ses patriotes qui sont dans la prison aujourd'hui. laaj leen seen bopp question nga ne da nga def sous contrôle judiciaire nga ne nit kooku mënul wax raison bo xam ne moom moo tax nga jàpp ko laaj leen seen question ils ont dit à Papa Alenia amul droit wax ci li nga xamné mom lañ ko jappé nga japp nit né ko amuloo droit wax li nga xamné mom lañ la jappé laaj leen seen bopp question bobu te nit kooku bañ koy interroger mba suñu koo laaj la nga xam ne moom la ñuy wax public bi ne moom lañ ko jàppee lan la ñuy nëbb il cache quoi les sénégalais Macky Sall dafa yab sénégalais yi nañu bàyyi ay mbirum ojo ak ay mbirum vidéo te ñu dem ci ay réalité Macky ak ñii boo génnee woon cuccu Macky bi xuuram yi muy mballu nga génne ko ci vidéo muy tëdd jigéen sax du tax mu dellu ginnaaw ci mbirum Ousmane Sonko loolu boo koy xalaat da ngay xalaat ne nit ku am jom nga ko seqal nit ku ñàkk jom la ko sénégalais seqal nit ku ñàkk ngor la ko senegal sénégalais seqal pourquoi ñun ñu war a toog di xaar kooku pourquoi sénégalais lan lañu wara tok xaar suñu biir kër yi ñu ne wala Ousmane Sonko ñu koy ci procès bo xamné ne warta masa am ban procès mo wara am ban firnde lañu ñu neul, kala bu jigen bu génn mu ne dañ ko siif même xalé bu jigen bobu mo génnaat def ay ojom, mu né li yeb dañ mako sant te ki mako ko sant mi ngi tuddu Mamour Diallo Macky Sall jël Mamour Diallo bobu tek ko à la tête de l'ONAS laaj len sen bop question ndax ñun vraiment makki sàll am na respect wala cër ci doomu sénégalais yi ñun lan la ñu soxlaati pour makki sàll ñu jàmmarloo ak moom pour ñu ne ko c'est la fin de ta reine Macky Sall waruñoo ëpp fulla waruñoo ëpp fayda makki mi ngi lekk-lekk bu neex ku dajji pale bi tey ngeen lekk lu leen neex Macky mi ngi sàcc xaalisu sénégalais yi tey ku dem ci seen kër yi nga fekk fa ay milliards Macky mi ngi rey sénégalais yi tey ku dem seen kër yi nga fekk fa ay doomu aadama lan la ñuy xaar nous on attend quoi dañuy xaar Macky Sall ñëw suñu rêve suñu projet projet bi ñu rêvé moo war a sàtt moo war a defar Sénégal Macky Sall ñëw détruire rêve boobu yëpp dem ba deux mille trente cinq sëñ bi nañu xeex ak Macky Sall bu gagné il a droit à être ici un président euh, euh, illimité am na ci droit man bu may xex ak goru yalla mu duma ma mais limu soxla ci man da koy am lan ngeen bëgg ñu tok lan ngeen bëgg ñun ñu xaar lan ngeen bëgg ñu defati ci senegal suñu espoir yëpp suñu rêve yëpp nañu bayyi Macky Sall ko ci benn fan kan lañuy xaar Ousmane Sonko Ousmane Sonko lañuy xaar benn doomu aadama mu ñëw sauver senegal ñun tous les 17 millions de sénégalais ñu ngi toog suñu biir kër yi on attend le président Ousmane Sonko Ben doomu Adam ak Ben Bop ak ñaari nopp ak ñaari loxo ak ñaari tank, mu ñëw sauver Sénégal loolu la ñuy xaar vous pensez que tous ces pays qui ont été sauvés dans ce monde ont été sauvés par un seul homme loolu ngeen yaakaar ngeen yaakaar ne réew yi bax ci aduna bi yépp Ben doomu aadama mo ñëw mu sauver réew yooyu yépp loolu ngeen yaakaar Ousmane Sonko est un individu un projet un projet ay doomu aadama ñoo koy ñëw pour def ko réalité te réalité boobu ñun doomu sénégalais yi bu ñu jógul dox ci réalité boobu réalité boobu du exister rêve lay doon ça restera toujours des rêves kenn ku nekk ci ñun mi ngi rêvé dugg avion dem Paris nekk ci wetu Tour Eiffel wala dugg avion dem Amérique dem Times Square kenn ku nekk mi ngi rêvé loolu Tour Eiffel mi ngi senegal Times Square mi ngi senegal lépp loo xalaat ci àdduna bi mi ngi biir senegal lan la laaj ay doomu aadama yu déterminé pour ñu tabax gratte boo gis ci àdduna bi suuf la woon ay doomu aadama ñoo jóg tabax gratte-ciel te du a doomu de ay force Sénégal il est temps l'heure de la révolution a sonné il y a deux ans de cela quand j'ai appelé cette jeunesse sénégalaise à la révolution cette jeunesse sénégalaise s'est levée et on a fait la révolution et Macky Sall a reculé je demande cette même jeunesse sénégalaise encore de renouveler cette révolution pour nous ramener cette fois-ci c'est définitif il faut Macky Sall ak ñi mu nous ñu dellu ginnaaw te kenn rek moo leen mën koku la ça c'est le peuple sénégalais c'est pas l'armée sénégalaise c'est pas la police nationale c'est pas la gendarmerie nationale il y en a beaucoup de patriotes parmi eux ñooñu duñu suñu cible ñun suñu cible du gendarmerie nationale suñu cible du armée nationale suñu cible du police suñu cible Macky Sall là. et c'est bien mal acquis et ses intérêts et les intérêts de ses amis loolu mooy suñu cible lan la ñuy toog ci Tibir salon yi waaw Ousmane Sonko de gars yi nee nañu day procès ban procès quel procès nga djign nit sàcc ñu ne la nit koku masul sax dugg ci boutique bobu yenu yenuwu fa sax tangal koku lan la sàcc on dit viol la dame elle-même elle a ses audios elle est sortie elle a dit à tout le monde que viol musul am fi le docteur Alfousseyni Gaye est venu avec le certificat médical mu qui ken kenn musu koo tëdde ba koy siif ndaw si ci bopam mu Ousmane Sonko ba mu ñëwee ci salon ba 4 mai la mamase ba légui ñun ñuy di déglu ñu naan ñu wala procès day am waaw en tout cas procès day am mais oui parce que c'était le plan depuis le début de l'affaire Macky Sall juge Samba Sall laaj leen sen bop keroog bi mu génnee bëgg wax dëgg jël juge Samba Sall ils ont pris ils ont pris sa vie Maham Diallo mom ngeen di xaar pour mu le leen non lieu à travers Macky Sall yéen a ngi nax sen et vous rêvez très fort parce que Maham Diallo est guidé par Macky Sall. Et ces juges qui vont juger Ousmane Sonko sont déjà choisis par Macky Sall. Le procureur qui va le faire est choisi par Macky Sall. C'est le plan d'éliminer et mettre fin à nos rêves. Je ne suis pas prêt à laisser mes rêves partir. Je suis prêt à effectuer ce projet. Je suis prêt à me battre pour ce projet. Je suis prêt à vendre cette vie pour ce projet. Et où es-tu toi Ousmane Sonko warul dem fenn bàyyi sa saa yu ñu Ousmane Sonko de dafa wara nangam Ousmane Sonko Ousmane Sonko sonna il n'est qu'une seule personne et j'en suis sûr et certain que son énergie est finie énergie Ousmane Sonko jeex Ousmane Sonko lamu wara wax wax nako lamu wara mu war suñu Macky Sall day jël bakkan Ousmane Sonko et notre rêve sera fin. lan moo daloon waa Burkina Faso mooy sàggan ñu bàyyi Thomas Sankara ñu atteindre ko loolu est-ce que ñun sénégalais yi dinañ ko nangu est-ce que nous les sénégalais on n'est pas prêts est-ce que nous les sénégalais burkinabé yi ñoo ñu ëpp fulla est-ce que nous les sénégalais guinéens yi ñoo ñu ëpp fulla est-ce que nous les sénégalais maliens yi ñoo ñu ëpp fulla dama ne kenn ku nekk ci Sénégal bu jëlee lu tolloog yat rek jàkkaarloog Macky Sall coow li jeex. Dame, nous, nañu Agmakisal, ak on n'a qu'à faire 5000 différents groupes à travers le Sénégal Macky Sall dans deux heures de temps son problème sera résolu à Sri Lanka ëpp ñu fulla ëpp ñu fayda réew yi nekk ci àdduna bi yépp li ma xam ci doomu aadama aglegi. Yalla yàlla sàkkee ak léegi sénégalais moo ci ëpp jom sénégalais moo ci ëpp fulla sénégalais moo ci ëpp fayda le président Ousmane Sonko est fatigué président Ousmane Sonko warul dem wuyuji on n'a qu'à barrer la route mu dem pour def président Ousmane Sonko bu demé wuyuji Macky Sall bu justice Macky Sall bi ben mbir rek am ils vont gâter son casier judiciaire et il ne sera jamais éligible à être quelque chose au Sénégal Macky Sall 2035 le jëm ak ñun su paree mu jox ko ay xaram Cameroun Paul BIA. wala nga dem laaj waa Congo wala nga dem laaj sax san Ali Bongo mii nga xam ne moom moo doon baayam fa ci Gabon nii la ñu bëggee Sénégal Sénégal nii lañ koy bàyyee nii la ñuy toogee ci biir Sénégal bàyyi Macky Sall ak ñi mu àndal yàq réew mi nii la ñuy toogee Sénégal bàyyi ñu mel ni Mame Mbaye Niang bàyyi ñu mel ni Amadou Ba bàyyi ñu mel ni sàcc yu mag yi yëpp géral ñu suñu réew Sénégal nii lañ koy bàyyee les patriotes nii lañuy toogee di seetaan président Ousmane Sonko un procès de complot dañuy toog ñu bàyyi Ousmane Sonko ñu comploter ko ñu éliminer ko dañuy bàyyi Barthélemy Diaz ñu éliminer ko dañuy bàyyi ñu éliminer tous les bons sénégalais Macky Sall jël réew mi jaay ko loolu ngeen bëgg te billahi wallahi tallahi loolu mooy am teg naa ko waat naa ko ci samay bakkanu njaboot Macky Sall buñ ko bàyyee ak Ousmane Sonko daf koy éliminer yàq casier judiciaire am xanaa yéen sénégalais ñun amuñu fulla xanaa ñun duñu ay doomu gor xanaa ñun suñu ay ndey liggéeyuñu xanaa ñun Macky Sall moo ñu gën liggéey ndey xanaa ñun baaxuñu xanaa ñun duñu xalaat xel pour lan la boo leen gisee Macky Sall ak defkatu ñaawte famille ak journaliste su Samba booyam yi mu équipé ñu dugg ci plateau télé yi di wax ay wax voilà voilà léegi plateau léegi nañu dem voilà léegi li des rek procès procès pour lan procès pour lan xooxu mango dafa mën dafa indi garabu orange xooxu orange dafa mën procès bu c'est pour empêcher le président Ousmane Sonko à être candidat et ils sont prêts par tous les moyens on n'a qu'à être plus prêts on n'a qu'à être plus déterminés mes frères et sœurs sénégalais l'heure de la révolution a sonné Damane, ne ay gor lañu ñun nañu am fulla am fayda am jom nañu xéxal suñuy dom xéxal suñuy sepp ñann ci ñun dinañu ñak seen bakkan waye ay martir lañuy doon aljana lañu dem kep ku dé ci xaré aljana nga jëm te kep ku ñu ray ci ñom safara la jëm man parena pour jaay sama bakkan ana nga yow doomu sénégalais bi dama ne lii may def nii yow la ngay def sutu ko dara yow la ngay def rawewu ko dara ndax barki Dembo Njaay ci réew oncle Sam bii laa toll ñu dugal ma ci biir prison bi ci réewu onkul Sam bii laa toll ñu may attaqué di ma dóor masuma woote terrain te jiituwuma fa l'heure de la révolution a sonné mes frères et sœurs sénégalais nemmeeku tur neex na lool dajale xaalis neex na waaye boo dajalee xaalis na fekk nga am candidat boo ko mën a investir te bu ñu xeexul billahi wallahi tallahi azim le président Ousmane Sonko na sera pas candidat en 2024 te musuma leen wax luy deñ te loolu nag du lu ma bëgg a expérience cette fois-ci bëggumaa toog di gis samay kàddu di doon dëgg dama bëgg a toog gis sénégalais ñu ne ma Tunkara du ñu nangu Ousmane Sonko ku ko liquider keroog ba ñu jàppee Ousmane Sonko dafa am ay màgget yu may woo ñu ne ma Tunkara am na ay màgget yoo xam ne lekkuñu semaine lekkuñu ba Ousmane Sonko génn prison dama ne bés bu rusul tuuru l'heure de la révolution a sonné woote bi ci lay dëkk woote bi ci lay ñëwaat suba woote bi ci lay ñëwaat gannaaw suba man pare naa ci ay conscientiser sénégalais parce que yee nañu leen bu leen ragal dee ku dee ci dëgg ajana nga jëm ku dee ci fen safara nga jëm ku toog sa biir kër Macky Sall dina la fa fekk ak ay charles kombaam génnal nga jàkkaarloo ak Macky Sall bu lay rey mu rey la nga dem ajana billahi wallahi tallahi waxtaan leen ak seeni ay oustaz ngeen waxtaan ak seeni ay kilifa diine yu dëggu nag yu xam diine dinañ leen ne boo deeyee ci xare boo deeyee ci jihaad ajana nga jëm te yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne mu ne bépp doomu aadama bu gis ñuy noot sa citoyen boo ko mënee dindi dindi ko ak sa loxo boo ko mënta dindi ak sa loxo nga dindi ko ak sa làmmiñ boo ko mënta dindi ak sa làmmiñ nga naqarlu ko sénégalais yi on est et on est defoon nañ ko ñefale nañ leen mën nañ leen ñefalewaat koo xeexal benn yoon nga duma ko boo xeexeek moom téeméeri yoon nga yor même doole bi nga indi même stratégie bi diñ ko dumawaat Macky Sall c'est pas un sénégalais Macky Sall deretu góor dawul ci yaramam Macky Sall gëmul république u Sénégal Macky Sall gëmul suñu dëkk Macky Sall gëmul Sénégal bu prospère Macky Sall doomam la fi nekkal njabootam ak intérêt tubaab yi képp mën nañu toog nii di seetaan Macky Sall ba kañ mes frères et sœurs amatuma rongoñ pour jooy amatuma baat pour yuuxu

billahi wallahi tallahi Sénégal du ma sa waa Fuuta ñoo gën a sonn waa Dakar waa Matam ñoo gën a sonn waa Podor waa Dagana ñoo gën a sonn waa Vélingara waa Vélingara ñoo gën a sonn waa Ziguinchor waa Ziguinchor ñoo gën a sonn waa Kaolack waa Kaolack ñoo gën a sonn waa Tambacounda billahi wallahi tallahi lazim Sénégal foo mu metti benn groupe nit ñooy dundee Sénégal benn groupe nit ñoo nekk ci Sénégal di ko saax-saaxe di saax-saaxe suñu alal dama ne billaahi wallaahi tallaahi bu ñu jàkkaarloowul ak Macky Sall billaahi dootuñu bàyyi buumu njaam ba àdduna tukki ay nitu Macky sàll ci boppam xam nañu loolu am na ay nit tey man yu may woo yoo xam ne ñoo ñu gën a jege Macky sàll dañ ma ne billaahi billaahi wallaahi tallaahi boo leen jógul xeex di ngeen ko regretter dans quelques mois di ngeen ma fi woowaat waaw tunkara Sénégal de léegi suukar kilo bi dix mille francs lay jar waaw de Sénégal tunkara ñun mënatuñoo lekk nen waaw de Sénégal tey tunkara ñun mënatuñoo naan meew loolu di ngeen ko wax léegi te du yàgg nañu jóg ñu xeex ak Macky sàll heure xeex bu jotee doomu gor da ngay jóg xeex heure dee bu jotee jaam rek mooy dund il faut ngeen xam loolu dama ne les jeunes sénégalais bu ñu jógul ñu xeex nañu jël exemple yeneen réew yi nga xam ne yëpp ñoo dellu ginnaaw tey ci Afrique tey boo xoolee réew mu mel ni mag euh, euh, fale maanaam Cameroun réew moomu lan nga ko mën a tuddee ñun naka lañu ñu mën a toogee ci réew mu mel ni senegal ñuy déglu ay nit ñuy déglu ay doomu aadama ñu ne ñoom dañ teg ci yoon Macky Sall respecté wul sénégalais yi ndax nit ñàkk respect weesuwul jëlal exemple rek jëlal exemple ci sa bopp nga ñëw fekk sa njaboot nga ne leen man de damay dem liggéey indil leen loo leen lekk bu subaa nga ñëw ci même njaboot jooju nga ne leen torox leen ma maa ko waxoon waxeet nga defe na njaboot jooju dinañ la respecté sénégalais yi ñun naka la ñu mën a toogee di seetaan ku mel ni Macky Sall démb mu ñëw nañu fi wala moom du présenté wu pour troisième mandat moom maanaam la limitation des mandats est à deux te bu ko falaatee deux mille dix neuf loolu mooy dernier deuxième et second euh, dernier mandat ñu ñëw toog la même Macky Sall ñëw tey di ñu wax ay waxu naxa sa xandang ay Ismaïla Madior fal ay doomu xaraam yoo xam ne tekkiwuñu dara ci Sénégal ay mo bari na ci ay morom ñu toog di seetaan Macky Sall muy dawal muy doxal di seetaan Macky Sall muy dem naan ñu waaw li fi amoon mois de mars du fi amaat waaw li fi amoon fële du fi amaat waaye li fi amoon fii du fi amaat xanaa du même doomu aadama yi ñoo fi nekk. xanaa du même doomu aadama yi ñoo génnoon ma def nii ndeyam xanaa du même doomu aadama yi ñoo génnoon fi jongalaat baayu Macky Sall xanaa ñun même doomu aadama yi dañoo changé diggante mois de mars deux mille vingt et un deux mille vingt ak léegi lan moo fi mën a changé deux mille vingt et ak léegi. dara changé wul lu dul ñu gën a am doole ndafa respecté wul sénégalais yi Macky Sall respecté wul sénégalais yi nañu jóg xeex ak Macky Sall bu ñu jàmmaarlawul ak Macky Sall leneen lu ñu doomu aadama bi wax waxuñu dëgg te bépp nit bu ànd ak Macky Sall waruñu ko épargner bépp nit dama leen ne bépp nit bu ànd ak Macky Sall waruñu ko épargner mënuñu fee toog ci biir réew ñun suñuy bàyyi suñuy maam ñëw liggéeyal ñu réew moomu ñu bàyyi ay doomu xaraam yu mel ni Macky Sall di ñëw di ñu yàqal réew moomu sénégalais yi fan la suñu jom nekk fan la suñu fulla nekk fan la suñu fayda nekk kenn xamewul sénégalais ñàkk jom fu ñu dem ci àdduna bi ñu conquérir ko léegi ñun si suñu biir réew ci ci boppam ñu bàyyi benn doomu jàmbur bu tekkiwul dara ñëw conquérir suñu réew billahi wallahi tallahi bépp doomu aadama bu dee ci xare Sénégal tu es mort comme martyr te billahi ajana nga jëm waaye bépp doomu sénégalais bu toog sa biir kër ba Macky sàll ñëw nanguwaat réew mii billahi yow di nga dee ci toroxtaange ci Sénégal te boo dee safara nga jëm parce que tu ne pouvais même pas te lever pour défendre tes intérêts nit bu mënul jóg defendre ay intérêt kooku buñ ko siifee sax war na ko heure boobu bu paase ku ñu ñëwati di siif say doom say jabar di sàcc sa alal di rey say mbokk sax yow waratoo ngay xeex bu ñu bàyyee Macky Sall mu jàllal lii muy jàllal billahi wallahi a jaratul ñun ñuy wax dara nañu bàyyi Macky Sall rek mu jël réew mi jaay ko ndax ba ñu waree xeex xeexuñu ba ñu waree wax waxuñu ba ñu waree baare Macky Sall yoon bi baarewuñu donc Macky Sall lu mu defati jar na ko dama ne il n'est pas question que le président Ousmane Sonko ñu koy bàyyi ci bépp au Sénégal dafa il n'en est plus question dafa wara tout le ji ci dara man maa ko wax man Ousmane Tounkara le président Ousmane Sonko dafa waratul dem ci dara muy wuyu ji Macky Sall lenn rek mo am Macky wona nañu guerre soit ñu guerre ak mom wala ñu jox ko réew mi rek la nañu guerre ak mom. te bu ñu geeree ak Macky Sall yàlla ñi dëggu la àndal billahi wallahi mënuñoo ñàkk contre Macky Sall sénégalais yi man maa leen ko wax te di ngeen ñëwaat remercier waat ma ndax vidéo bii ma fi teg nii loolu du vidéo wu tey loolu c'est vidéo avant ñuy dal ci kaw Macky Sall ci émetu marsiya te ba ñu dalee ci kawam yàlla may nañu ndam te billahi ñun ñëpp ku nekk ci ñun bu ñaanee yàlla yow yaa xam yàlla booy ñaan yow yaa xam chrétien nga nga ñaan sa yàlla yow yaa xam juif nga nga ñaan yàlla yow yaa xam jullit nga tawakkaltu ilallah balaa ngay génn sa buntu kër nga dem xarek Macky Sall billaahi wallahi tallaahi yàlla da lay may ndam te yàlla bu jëlee sa bakkanit ajana nga jëm mbokk yi maa ngi ne Macky du jullit Bailen julli bi ngeen koy gis mu koy def doomu aadama julli na ba tàyyi te du jullit doomu aadama wax na ba tàyyi te du wax katu dëgg Macky Sall du wax dëgg gëmul sénégalais il veut nous assassiner ndax nit bo nangoo ngoram nga nangu alalam nga nangu xam-xamam nga nangu man-manam nit kooku dundam jarul dara dama ne dani dañuy amaat ndam billahi man maa leen waatal ci lii bu ñu nangu président Ousmane Sonko di dem di jàkkaarloo ak juge yu Macky Sall yii duñ ko am ndam billahi lazim dama ne billahi wallahi tallahi lazim nañu jàkkaarloo ak Macky Sall ak ay mbokkam je serai le premier à vous dire que bis bu loolu amee billahi wallahi tallahi ndam lañuy am te nag ñëpp lañ ci woo amul mag amul ndaw amul xale amul góor amul jigéen jigéen ñi def leen seen wàll góor ñi def leen seen wàll xale yi def leen seen wàll na ñépp def seen wàll Macky Sall billaahi wallaahi tallaahi xale yii di jël géej gi ngeen di jël àll bii di ci dee mais xare senegal moo ko gën a yomb te ku xare senegal di ko remercier di nga ñu remercier waat risque yi ñuy jël diko duggé gal diko démé ay ay ay ay maanaam ay ay all di traverser allu Brésil bi billahi wallahi tallahi buñ ko xeexee Sénégal ndam li fa la uppé dama procès bi élément la bo xamné ne Macky daf koy utiliser tout simplement pour éliminer le président Ousmane Sonko damay né Sénégalais bis bu juge Maham Diallo déclaré woo keroog lii bu mu ko fanaanoo loolu man maa ko wax ruu bu mu ko dese rocci leen ruu bi ngeen ruux ko ci gàttu Macky Sall Maham Diallo bis bu prononcé woo bis bu prononcé nañu dal ci kawam te dal ci kaw Macky Sall ay ñoñoom dal ci seeni ay intérêt

Elle est Sénégalais, je sais qu'on est capable. Parce que, madame, le mois de mars passé, test la woon ci ñun. yàlla moo ñu don won doomu adama sa bu takkee fitam def liko war rek billahi wallahi da ci am ndam lan motax ñu wara tok di sétane président Ousmane Sonko pour qu'il soit liquidé par Macky Sall lolu ñun bandam lañ ci am billahi wallahi tallahi l'azim. bu ñu xeexee Macky Sall dañuy am ndam billahi wallahi tallahi lazim bu ñu jàkkaarloog Macky Sall dañuy am ndam il est temps l'heure de la révolution a sonné bàyyi leen ay ojo bàyyi leen ay vidéo bàyyi leen loolu yëpp bàyyi leen loolu bàyyi leen déglu nit ñi nit ñi ñu ngi leen di stigmatiser toujours man maa mosoon taxaw ma seedeel sénégalais yi dara ma billahi wallahi tallahi lazim sénégalais mo upp jom ci doomu adama yuma xam ci aduna bi te delluwuma ci ginnaw bokuma ci ñi stigmatiser nan waaw sénégalais du jóg sénégalais amul jom amul fulla jamais man dama bok ci sénégalais yo xamne gëm na len yéen gone yi man je connais ma jeunesse et j'ai confiance en vous billahi wallahi tallahi lazim je connais ma jeunesse et j'ai confiance en vous xoolal Sénégal 17 million de personnes waaye doo tudd football te doo tudd doomu sénégalais doo tudd basket te doo tudd doomu sénégalais doo tudd tekki ci àdduna bi te doo doomu sénégalais doo tudd fulla ak fayda te doo tudd doomu sénégalais doo tudd lu changé àdduna bi te doo tudd doomu sénégalais lii yëpp am na ci ay misaal ndax foo dem ci àdduna bi dégg turu Cheikh Ahmadou Bamba New York bii sax am nañ fi tali ko tudd foo dem ci àdduna bi tudd dégg turu Cheikh ante Diop foo dem ci àdduna bi du tudd dëgg turu Sadio Mané foo dem ci àdduna bi même ci waykat malgré c'est en traître Youssou Ndour même ci woykat parmi les meilleurs au monde ci entends le nom de Youssou Ndour tu entends le nom de Wally foo dem ci Sénégal quand on parle des belles femmes on ñu ngi wax turu sénégalais loo dégg rek ci àdduna bi ñu ngi ciy tudd turu doomu sénégalais dama ne Sénégal ci réew yi gën a tekki ci àdduna bi lañu bokk yàlla daf ñoo nattoo rek njiitu baadoolo te njiitu baadoolo boobu ñun ñoo ko faloon mën nañ koo folli loolu mooy dëgg bu ñu layam layamee bu ñu waxtaanati bu ñu négocier ti bu kenn déglooti Macky Sall ak nga ñoom je vous garantis ne ñu ngi takk seeni ay bagage bu ñu dégloo man ma wax nii rek ñu ngi takk seeni ay bagage ñoom ñëpp woo nañu seeni ay agence de voyage di jënd ay billet avion parce que xam nañu ne dinañu dal seen kaw ñoom xam nañu loolu ils savent que duñ leen may dara pendant que tey ñun ñuy wax nii am na ci ñoo xam ne ci ñoom ñu ngi Dubaï di tëddee ay jigéen ay caga ñu ngi France di tëddee ay caga ñu ngi Amérique fii di tëddee ay caga am nañu ay kër ñoom ils se sont préparés Sénégal tey bu yëngu ñoom ñëpp dañuy daw génn biti réew dem dëkk ci seen kër yi ñun doomu sénégalais yi ñu toog si suñu biir kër yi ñu ne pat di leen déglu élément déclencheur élément déclencheur élément déclencheur bi lal nañ ko ils vont essayer de liquider le président Ousmane Sonko qu'il ne réponde pas Ousmane Sonko qu'il ne réponde pas bu mu demati déglu Macky Sall bu mu demati déglu ben juge ci aduna bi ñun xam nañu la wóolu nañ la gëm nañ la xam nañ ne li nga wax yëpp dëgg la mais xam nañu ne ay baadoolo nga ko damane xam nañu seeni ay kër xam nañu seeni ay bien xam nañu seeni ay jabar xam nañu seeni ay doom xam nañu seen am-am bu senegal yëngoo ñun nañu yëngal te billaahi bu ñu yëngalee man maa leen wax lii de di ngeen xam ne ndekete ñun yéex nañoo yëngal réew mu tekki ci àdduna bi révolution la njëkke dama doomu sénégalais yi lay waxal jarul yónnee wante ay message whatsapp boo leen demee ci telegram tey nee naa leen am na option ci yéen ñi jàng ku jàngul waxal keneen defal na ko telegram même telegram bi am na option message boo xam ne day détruire boppam après cinq minutes dajaloo leen par une douzaine par des groupes de cinq par des groupes de six Nous tek Macky Sall ak seen place bu nous avons par un million de personnes sur une place lolu nañ ko baye jigen ñeeg ndaw ñi pendant que jigen ñeeg xalé yu ndaw yi di dajalo ñun ñu ngi ci place yi nga xam moy intérêt Macky Sall ak ay assumer na comme ni ma ko wax ji may wax sama amul problème mais bu boobaa yéen jot ngeen message bi ngeen war a jot man naa accidenté dee man nañ maa dóor bal ma dee man naa feebar dee lu ne xej na ci mais boo leen dégloo message bi jël leen ko ngeen partagé ko mu yegg fa mu war a yegg doomu sénégalais yi ko war a dégg ñu dégg ko doomu sénégalais yi ci war a jot ñu jot ko te bu boobaa bu fekkee yowmal xiyaam la ma fekk di ngeen ma ñaanal bu fekkee ci àdduna bii la ma fekkaat di ngeen ma jaajëfal te di ngeen ma ñaanal wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.